m'appelle Thierno Diagne, je suis le secrétaire général de l'Association nationale des bijoutiers Teguetamo. Euh, nous saluons tous les membres du comité directeur et vous remercier de votre présence. L'Association nationale des bijoutiers Teguetamo remercie et félicite le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'avoir pris cette sage décision qui est de respecter et de faire respecter la Constitution en renonçant à une troisième candidature pour la paix et la stabilité du nous rappelons tout de même aux acteurs politiques que nous, les artisans, nous ne vivons que de notre métier. Sans cela, nous ne pourrions satisfaire nos dépenses quotidiennes, dont la paix et la stabilité. Nous y œuvrons et appelons tous à y œuvrer. Par ailleurs, nous encourageons le gouvernement du Sénégal et l'exhortons sur ses projets de restructuration du secteur artisanal. Ces projets qui nous lient, étant donné que l'État est une continuité, nous rappelons au président de la République ses promesses depuis 2013 à travers une déclaration d'installer un comptoir de commercialisation de l'or en concertation avec les budgétiers dans le but de formaliser notre secteur et de le rendre, de le rendre plus productif depuis lors. Les initiatives restent à être concrétisées. Nous espérons dans les mois à venir de son fin de mandat, cette promesse connaîtra des avancées. Dans le même sillage, nous encourageons notre ministre de tutelle, Dr Papa Amadou Ndiaye, et l'exhortons dans sa mission à mieux accompagner et nous soutenir dans nos projets, de mieux nous assister et de contribuer davantage au rayonnement de notre secteur. L'artisanat, les bijoutiers en particulier, sont des acteurs essentiels dans le développement économique du pays, dont il est de l'obligation de l'État du Sénégal, à travers son ministre, de mieux nous assister à bien développer le secteur. Enfin, sur le PEJA, dont la première phase vient de prendre fin, sans l'implication des bijoutiers artisans, nous rappelons au ministre de l'Artisanat de faire le nécessaire pour notre implication dans la deuxième phase de formation, de formation. Car nous aussi artisans d'art, nous faisons partie intégrante de la société et voudrions bien en profiter pour notre formation. À propos du fonds Covid-19, la majorité des bijoutiers n'ont pas reçu les 150 000 qui les ont été merci. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ziare ñëpp di nuyu di rafetlu en tout cas teewaayu journaliste yi ñuy xamle rek tey li ñu fi dajale mooy association nationale bijoutier tëgg table dafa woote coordonnateur am yi nekk ci national bi yëpp. tey fii ba Tamba fu nekk nit jóge na fa ñi ñu toog fi yëpp ay responsable lañ ci Sénégal. ñu fas yéene tey waxtaanee li nga xam ne moom mooy ci suñu métier jafe-jafe yi nga xam ne moom lañu am ñun solution yi nga xam ne teg nañ ko ci ak lan la ñuy xaar ci suñu njiit yi waaye comme ñun ci réew mi lañ dëkk te réew bu ñuy wax réew yow bala ngaa mën a liggéey sa liggéey faaw réew mi intéressé la réew mi nag actualité bi am at mi euh, fi mu nekk nii yoon la sénégalais bu nekk mu génn wax ni en tout cas ñu ngi jaajëfal président wala ñuy encouragé président ci. décision bi nga xam ne jël na ko te mu doon décision boo xam ne en tout cas ñun bokk nañ ci ñi ci xeex ba ba léegi mooy respecté li nga xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp te loolu kon nag dañ ko ciy jaajëfal parce que musu mënu na ko bañ a def dañ koy jaajëf di ko encouragé mu continuer loolu parce que li tax ñu koy encouragé mooy loolu mooy jàmm réew mi te réew mi bu amul jàmm ñun ñi nga xam ne ñun ñooy góorgóorlu yi di artisans yi ñoo ñu gën a am problème parce que ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne suñu xëyul suba du ñu am du ñu am dépense nit kan bu nekkee ne du xëy suba du am dépense suñu fàttalikoo yi fi jaar toog na 10 jours wala 15 jours réew mi nekk ci nërmeelu kon ñun ñoo gën a am problème ñëpp ñi am salaire amuñu problème kon ñu ngi encouragé loolu di woo élite politique bi ñëpp ñu am xam responsabilité bi ñu am ci virage bi ñu nekk nii virage bi ñu nekk mooy réew bu nekk bu ci nekkee ñaar rek moo lay xaar mooy benn da ngay réussite wala nga échec dañuy dundaat 60 ans ci ginnaaw wala ñu def comme Dubaï wala comme neneen léegi nag loolu ku ci nekk journaliste bijoutier menuisier ku ci nekk am nga ci responsabilité boo ci war a def ba ñu yegg fi ñu bëgg a yegg parce que la preuve mooy ñun ñëpp gis nañ jafe-jafe yi ñu yi ñu yi loolu moo tax tëgg taab responsabilité bi mu am ci réew mi ak li mu njaboote moo tax i faut ñu àddu ci tey ñu ñëw fii tuuba waxtaan ba pare i faut ñu àddu ci loolu en tout cas di di wax rek ne ñoo ngi woo suñu politiciens yi ne ñoom rek dëkkuñu ci réew mi te li ëpp ci économie ci réew mi ñoo ko yor kon nañ ñu sóoraale ñun ci seen problème yi ñuy kii en loolu lañ ciy wax beneen bi ñuy soññ suñu gouvernement bi nga xam ne mu ngi fi parce que comme ni mu ko waxee état continué la ñu nekkuñ ci logique ñii dañuy dem wala ñii dañuy dem ñun dañu jàpp ne ni ñu ko waxee woon président de la président Macky Sall bi ñu jàkkaarloo ko moom 2000 2022 wax ko ne ko yow 2013 yaa taxaw ci sa discours euh, ci ci discours à la nation bi nga bi nga bi nga wax ne danga bëgg bala nga fay jógee nga taxawal comptoir national sénégalais wax montant bi wax lépp mille 2013 ba 2022 ba 2020 22 ñun jëmmalu ko ma taxawal moom ne ko kat yow benn bés bi nga doon wax en tout cas bokkoon na ci ñun xale yi nga xam ne jàppoon nañ ne lii bu ñu ko taxawalee rek doy na sëkk pour président defal artisan yi mais gis na ne président de la république bi mu toogee 12 ans mi ngi bëgg am 12 ans ak lu teg mais gisuñu dara loo xam ne régime bi defal na ko bijouterie yi en tout cas amut parce que ñun bu nekkee ne ñun matière première matière première la ñu ñaari façon matière première la am muy gal ak or bu nekkee ne gal bi am na fii Sabodala ñu koy génne di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu Suisse or bi am na fii Sabodala ñu génne di ko yóbbu léegi ñun dañuy wëlbatiku dem jëndiwaat gal bi Turquie wala ñu jëndi ko France gal bi buy dugg Sénégal dañ koy nëbb te gal boobu tëgg yu toog fii yëpp seen dépasse gal bi moo ko yor ñun bi ñu yëgee loolu taxawuñu di xalaaj état lan la ñuy defal ñun ñoo taxaw cotiser suñu 10 000 suñu vingt 000 suñu 25 000 ba taxawal suñu comptoir bopp di lijjanti gaal bi di ko jaayal suñu bopp. waaye dañoo toll foo xam ne li ñu am ci demande sénégalais yi soxla gaal bi di ci dund dafa ëpp doole ñun ñu taxaw état comme état moo ñu jox récépissé pour ñu def beneen rôle pour moom parce que association bu ñu ko waxee dafa am loo xam ne état war na koo def ci ay njabootam te ko ñun ñu dajale pour jàppale ko ci ay njabootam ñu dem ci ne ko kat ñun liggéey nañ ba yegg si fii. muy ministre Pape Amadou Ndiaye dalal na ma ñetti yoon ci at mi ñu dem wax ak ginnaaw bi ñu wax ak président ba président yëkkati ne TVA bi nga xam ne moo nekkoon blocage ci comptoir national dina ko dina ko dindi muy 18 pour cent bi nga xam ne moo ko téewoon depuis 2013 ba ba 2022 mu ne dina dindi TVA bi sant ministre de mine Omar Sarr ne ko na nga jëmmal comptoir bi ñu jël benn cabinet dénk ko liggéey boobu mu def enquête enquête bi pare na ñun ñi rencontré nañ euh, cabinet bi ba cabinet boobu def li mu war a def yëpp léegi nag président déclaré na ne moom pare na dañu koy ñaan su nekkee ne moom jëmmalul comptoir boobu mën na jàpp ne am ans yëpp defarul dara bijouterie te jàpp naa ne ni ma ko ko waxee woon keroog kilifa dafa baax su joxee promesse mu mu mu sàmmonte ko parce que dinañu permettre institution bi mu jiite ñu respecté ko parce que le président li ñu tax ñuy wax président mooy bu waxee mu jëf kon. loolu noonu nga xam ne jëmmal jëmmal war na ko jëmmal muy comptoir bi ndax comptoir bu xasee ba taxaw problème yëpp dina ko régler loolu lañ koy soññ balaa dem wala balaa kii mu mu mu ko mu jàll ñu wan ginnaaw comptoir bi léegi comptoir boobu problème yi ñu créé mooy amuñu matière première benn galbe bi ñu taxawalee comptoir bi ñun taxawal suñu comptoir di jaay dem ba gis ne demande bi tëgg yi li ñu soxla ci gal li tëgg yi soxla ci gal ak ñun li ñu leen di jox bokkul ndax tëgg yëpp léegi tëggatuñu or parce que or bi jotewuñ ci gal la ñuy tëgg waaye ñun tamit li ñu dajale ku si ne mënul mënul fournir ñu def suñu projet toog ak le ministre ñu toog ak directeur DER parce que lu mel ni DER bu nekkee ne président taxawal na ko ne dafa war a jàppale ndaw yi wala dafa war a financé ay ay projet jàpp naa ne benn projet gënul mag projet boo xam ne day delluwaat ci ay artisans ñu dem mu étaler mais boobu ba léegi li am ci Sénégal rek mooy am mooy projet yi ñuy wax ni yëpp di ko tudd ay wax rek la mais duñ ko réaliser depuis boobu ba léegi ñu ngi si ñu ngi leen di soññ nag projet yooyu nga xam ne dëgg taabal taxaw na ko te lépp day delluwaat ci ay borom njaboot ñu xool ñu ko évacuer comme ñoom ñu taxawal comptoir bi dëgg taabal pare na pour taxawal comptoir boobu en tout cas loolu la ñuy wax ci wàllu kii bi beneen bi mooy formation ku ne xam na ne suñu société ñu ñëpp dañuy taxawal suñu société léeg-léeg gis benn tëgg boo xam ne day nekk ci benn mruq mën na fa am 20 ans ni loolu manque formation am na ci te état responsabilité mooy mu xool touche yëpp nan lay fexe ba mu développé léegi daf ci bokk boo xoolee fan yi ñu ngi wax trois cent personnes yoo xam ne suñuy doom réew mi ñu ngi gàddaay wan ginnaaw réew mi ñu ngi leen di jaale di jaale ñëpp di leen masaw mais gis nga loolu day yokku te du bàyyi fekk réglé wuñ problème bi te problème bi nekkul fenn du ñëpp mënuñu dem ci administration ñëpp nekk mënuñu nekk député ñëpp mënuñu nekk journaliste wala ñëpp nekk mënuñu nekk ay politiciens artisan 120 corps de métier la te bu nekkee ne bi def na ci li mu ci war a def dama koy wax chaque jour président Macky Sall bi mu toog ak léegi li mu def ci football stade yi nekk ci Sénégal gi yëpp daf ko defaraat yu ci bëri def ñett ñetti stade waxuma laa maanaam jël xaalis bu bari def ko ci sport mais résultat bi mooy lan mooy at mi ñi ngi commencé di dajale ay ay coupe nit da ngay investir ci li nga xam ne daf ñuy amal rentabilité rentabilité bi nekkul fenn fu dul ci artisanal jàpp naa ne alal ji mu def ci football bu ko defoon ci ci ci ci artisanal fi mu nekk nii tey du ñu toog Sénégal di nekk ci kaw bi mu nekk parce que kaw bi li ko permettre mooy ndaw yi ñu ci bëri am nañ problème liggéeyuñu amuñu xaalis amuñu fu ñu jëmee te ay borom yu jom la léegi nag responsabilité suñu njiit yi mooy ñu xool yan secteur la war a développer pour ñu mën a génn ci en tout cas loolu la ñuy wax ci ci ndaw yi nga xam ne des nañ ci géej gi benn solution la ñu gis mooy artisanat. maanaam maanaam métier bi li tax mu li tax mu taxaw mooy benn su ma ne lee ñaari matière première la ñuy am mooy or ak gal gal mooy xaalis bi ñuy defaree état bu Sénégal état bu Sénégal amul benn jéego bi ci demee bi mu toogee ba léegi. gal bi dafay dugg confort la fiy duggee ñu wax ko mu leer ñun amul ñu ci nëbb parce que nag damay wax ne léeg-léeg nga wax ko ñu ne non est-ce ëllëg duñ ko a jàpp mais mënuñu nit ñoo ciy dund loolu kenn xalaatu ko mais loolu dafay dugg par fraude beneen bi mooy comptoir national bi nga xam ne mooy or bi nga xam moo waroon régler lépp ba léegi état bi ay jëmmalu ko ñaar yooyu beneen bi mooy formation te nag formation fu mu amul réussite mënu fa loolu mooy loolu mooy loolu mooy li nga xam ne beneen bi tey mooy digg yi nga xam ne suñu ministre tutelle da koy def te du ko respecter il faut ñu wax ko parce que un ministre bu mënta régler problème mu euh, benn association nan la mën a régler problème mu secteur te dañuy toog moom bureau mu wax ba nga xam ne moom da ngay jàpp ne suba mbir tegu boo génnee ay promesse lay doon en tout loolu dañ koy dénoncer te artisan yi dañ koy dénoncer. en même temps tamit <laughs> bu bërki démb li fi amoon li tax mu jaaxal ñëpp mooy nit ñi liggéeyuñ nit ñi duñ toog ci néeg yi di dee te amuñu liggéey te nit ñi ngi dund dundin bu metti te loolu li ko waral rek mooy soo jëlee bijouterie problème boobu la am nga jël menuiserie problème boobu la am artisan cent vingt corps de métier problème loolu la am mënuñu nekk ci réew moo xam ne chaque jour actualité bi politique rek lay doon mënul nekk ci problème rek lañu jëm il faut ñoo xam ne réew artisan yi ñoo koy liggéey voilà ñoo ngi jaar wax dëgg